ñëwoon tey Géejawaay comme ni ko defee ci yeneen dëkk yu bëri euh, di waxtaan ci place Plasipri mu nekk ben plateforme de financement bo xamné dañ ko jël pour jéklé ko ñi nga xamné ne seen doole dafa néew tout ñi nga xamné également ñu ngi liggéey institut microfinance yi comme que man ci la nekk di président APCFD ñew tok waxtaan ak ñom ci nan lañ mëna def ba jot ci xaalis bobu na xaalis bobu du xaalis bu leen di jox mais xaalis bo xamné day jaar ci institution de microfinance yi ba egg ci ñom ñu war tok toog waxtaan xool lu leen kay jotalé

boo ko fa dugalee dinañ xool nu ñu leen ci defalee benn taux d' intérêt ñu fi bu ñu leen lebalee nga xam ne boo ko boolee taux bi dina tolloo taux boo xam ne dina acceptable donc ci loolu lañ nekk di ci réfléchir donc réflexion bi nag dafa laaj ñëpp dugal seen loxo kon ni ma ko waxee institut microfinancier aujourd'hui Sénégal toll nañ ci lu mat 303 euh, euh, instituts microfinance mat na 300 3 millions cent et quelques mille clients te weer bu ne institut microfinance dañu dugal 35 milliards fanweeri milliards la juróom ci économie réew mi

donc xaalis jàmbur lañ jël di ko lebale donc dañuy jël taux mais légui dañuy bëgg xol ak ba nga xamné taux boobu ci ciy du du du leen gaañ té dina mën liggéey ci taux bi na ci waxat benn ki parce que buñ ko jappé rek né institution de finance parce que taux yi aussi dañuy dañ dañ ko réglementé ben institution de finance waru mëna def taux bo xamné ne 24 mu ta nek mais bu ñu 24 tamit moy taux annuel d' institution microfinance mooy taux bo xamné boko boko boo ko boo bu nek du nek 24 di nek 2 il faut ni nit ñi comprendre économie du nekk donc bu ñu waxee dafa dafa cher nañ ko jappé que 2 que ne ñaar fukk mo la lebal ñaar fitin nga ma ci fay weer bu ne donc lolu il faut que ñu ñu jàppee ko noonu place du prix bi bu ñëw tey ne leen dañu defal taux de 12 moy taux effectif global mais ci at bi la su la joxé su la joxé 100000 francs ci at bi taux 12 pour cent la nekk te weer bu ne weer bu ne 2 ki cent ci fay donc bu la joxé ki ñaar fitin nga fay donc nañ ko jappé que ne donc lolu moy lolu moy taux bi mais bu ñu waxee rek ne taux bi dafa cher dafa cher daanaka cher na mais bi ko jappé nonu nañ xamné Euh, quand même war nañ cee mën a góorgóorlu gën cee liggéey.